Sénégal 4 TV yow ya ko moom ku ne mën na wax xalaatam ci Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV moy le 77 507 27 29 Sénégal 4 TV forever. bu dee gan nga ci kër gi nag le bouton abonnement bi té bul faté activer cloche de notification bi dé ngir baña tardé benn ci ay vidéo yi ni def ay bi et maintenant bon visionnage TV yëpp maa ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp di di nuyu sama xarit eh, Assane Dia maa maa ngi lay nuyu eh, di ñëw rek dama bëgg waxtaan dara te yéen tey ah ci li nga xam ne moo war xew tey ren ci biir ci dëkk bi waaw ah, nañu góorgóorlu to liggéeyante bi bari xeex bi tam bari na waaw ah, wàllu bi tam bari na. xam-xam boo ko doonul mun na ko jàng waaw parce que xam-xam duñ koo jàngal kenn waaw ku mënul mënul tëjee gis wala nga mun a xëy wax ne lii dina xew loolu xew mënoo dara waaw te waa bitim réew yi yëpp waa maa ngi nuyu ñëpp di ziare ñëpp waaw leen wax ne tam oh, coow bi. bari na feebar bi tam bari na waaw mais dinaa leen wax ñaari garab am naa garab bu bu wax saam boobu ku koy ut na ut juru alxames ah? boole kook garab bu ñu wax sax ah ak garabu ndimle nga sangoo ko ñeenti fan boo ko defee feebar bu xe bi nga xam ne moo xew ci biir dëkk bi di nga ci mucc sa njabot di dinañ ci mucc wa bu dee tam pour wàllu karange yépp yëpp ya, ya, yaakaar né dama yag na ko wax wa bu dee tam pour walu kay pour walu tukki lolu yépp ya, yaakaar ne am na waaw bu dee tam pour walu dom wa bobu tam garabam comme te dex dex boo xam dafa dem boo jeex suuf bi ci bi ci digg bi suuf boobu ngay ut ut soto doomu soto boole ko wol ko wallaay asim koo ko jox bu dee pour wàllu problème am doom dina ko am waaw bu dee tam tam pour nit koo ko xam ne dañ koo liggéey wala ñu sànni ko korte na bëj bëjum nag bu sax ut garabu nduur ut ngeer bu sax ci biir armeel mu wol ko di ko suuru liggéey bu ko jàppoon dañ te ku ko mos a liggéey liggéey boobu bu dina dina dina ci kawam. waaw mhm. parce fu mu nekk réew mi dafa nekk réewu xeex dafa nekk tam oh, réewu sacrifice. Mhm. waaw mais yaakaar ne lii yàgg na ko maa ngi nuyu nuyu tam sama. ñu ko waa seen TV yëpp di nuyu waa Kaffrine du leen mën mos a fàtte waa Fatick yëpp maa maa ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp. damaa ngi ñëw nag tey pour nuyu nuyu leen génne benn vidéo waaw parce que tam boo déggee wàllu coow bi foo mu nekk bari na mais dafa am sacrifice boo xam ne dañ koo génne barkaat démb comme aljuma ci guddi lañ koo génne boobu. ñi nga xam ne ñu ngi ci biir nguur bi ñoo ko def ren am na bakkan yu bari ñoo xam ne dafa war a wadde te ñu ngi ko génne ci benn rab ci benn tuur bu ñuy wax sangamaar waaw fa lañ ko génne boo boo boo gisee dee bari bi loolu la waaw mooy rek li ma leen doon wax nañu delloo suñu xel ah too Fatima ñun ñëpp benn nañ mooy sacrifice bi bari na trop bari na trop trop trop fu mu kii nag nekk nag ku ci bugg a génne borom kër bu nekk bu dee mën nga ko génne na nga ñeenti faamu yàpp ñaari saam yi sarax ko góor yeneen ñaar ñaari saam yi sarax ko jigéen bu dee mag baax na bu dee jigéen baax na ah, kër boo ko génne sa njaboot dina mucc ci wàllu accident boobu wàllu dee bi parce que ren ñu ngi waaj a génne nawet bi mu ngi xaaj. waaw ah. ñu wa war war a dugg cam ci daafin waaw ah. to mooy li ma leen doon wax ku mënul gën te di guddi gis sa baram mënoo wax nit dara waaw ah. to am na benn faam boo xam ne barki démb ama démb gis naa ko ci YouTube bi mu ne kenn mënul fi xoolal nit loo xam ne kii na am na nit mënoo toog yi xoolal nit bitim réew kooku day wax lu ko neex waaw gis nga kuy jàng ak ku doon bokkul du du doo benn mukk waaw moo tax nañu gën a góorgóorlu ñun sénégalais yi bàyyi sacrifice bi waaw parce que bari na trop Mohamed Faye moo moo ñëwaat tey ci beneen kaddu waaw parce dafa am lu lu feeñ ba ne bu ci guddi waaw boo gisee presque dégg nga kii itaay bari am na wàllu sarax boo xam ne dañ ko diggal ñoo xam ne ñu ngi liggéey ci ci biir ci biir nguur bi wàllu sacrifice la waaw boobu sacrifice boobu ci ci yàpp lañ ko def def ko ci kaw tal tali bi boo déggee dee bu bari lii la mais borom kër bu ko mun boo mu nekk ni ñeenti saamu yàpp borom kër bu nekk na koo génne ah ñaan ci njabootam yëpp saraxi ko boo ko defee sa kër dina ci ci mucc koy ñun nañu bàyyi suñu xel bu baax a baax a parce que lu nit def rek liggéeykat mun na tollu fale gis ko waaw moo nekk li ma leen doon wax waaw ma ne tey xaalis neex na mais nañu delloo suñu xel ci yàlla too fu mu nekk nii sacrifice bi bari na waaw tooy lépp agro politique bi lu ci bari moo ko waral waaw borom kenn bu ko mun na nga génne ñeenti saamu yàpp waaw sarax ko ñaari ñaari saam yi góor yeneen ñaari saam yi jigéen wa ku ko def sa njabot bi dina mucc ci walu tamara bi waaw ñu ngi waaj dug nak ci nak bi nga xamne ne mu ngi waaj waaj gini wa ren dina tan top ren euh, ren mom mu talu ki bi nak bi dina tan top waaw nañu lu wax bu baax a baax doo fonk ko sarax waaw maa ngi gis euh, jigen bu dugg ci youtube ah ne xam nit mu mu mën a toog pour mu nit xoolal nit gis nga jigéen affaire yu si ñam soriwul parce que jigéen boo gisee règle mun na too liggéeyal nit mu jàpp mun a xoolal nit ah. kon nag ñoom seen liggéey bariwul ah seen liggéey bariwul ah coow ñoom seen wax topp seen seen wax bari na topp mais am na foo xam ne bu ñu tol toloo foofu wallahi asim ah, toog ku ñeme ah gis sa sa baat comme. jakkatoo wuufu bunu ma defoon nga woo ko ma ne ma lii ak ku ci bëgg a xam lu leer sama numéro téléphone 77 855 14 36 waaw sama numéro 855 14 36 waaw message boobu nag maa ko laaj Sénégal yëpp ku ko mën def def ko yaakaar gis ngeen lu xew Sénégal ak Mali ah te loolu yëpp du neen ah sacrifice boobu ma waral sacrifice bi ñu ko defé ci bini geej bu ñuy wax sangamal bini rab wa ku ko def politicien la mu ngi ci bir ki bi dekk bi wa wala ci bi moom bari na trop trop trop mais nañu xamné suñu mag suñu rak suñu suñu doomu ndey ñepp fi nekk wa nañu gina gor gor nak bu baax a baax a baax baax. Sénégal 4 mën na wax xalaatam ci Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV mooy le 77 507 27 29 Sénégal 4 TV forever. bu dee gan nga ci kër gi nag bésal bouton abonnement bi teg bul fàtte activer walla cloche de notification bi de ngir bañ a tardé benn ci ay vidéo yi ni def ay bi si nekk et maintenant bon visionnage. numéro Sénégal 4 TV 77 507 27 29 Sénégal 4 TV forever. Vous dee gan nga ci kër gi bouton abonnement bi teg activez la cloche de notification bi de ngir tardé ci ay vidéo et maintenant bon visionnage.